yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa di weeru barkeel weeru sell weeru tedd te bëri ngëneel dëkk bu sell bi di Touba dañu koy dundal bu baax a baax te lépp lu ñu daan def ci lu baax dañu koy yokk muy jàngum alxuraanul karim la ak alxuraanul karim ci jumaay Tuubaa ju mag ji njàngum fajar gi ñuy amal ci jumaa ji ba léegi ak i waxtaani koor yu am solo yu ñu amal ci dëkk bi yépp ba ci jotaay bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou xalif général des Mourides moom lay amal ci résidence Xaadimu Rasuul di njàngum xasida mu yaatu bu muy ànd ak waa daara Hizbut Tarqiyyah dundal weeru koor gi ci dëkk bu sele bi di Touba noonu lay wéyee ba ci ndog yi ñuy amal ci jumaa ji ak yi kër maam Cheikh di Baye Fall yi di indil xalif général des Mourides yàlla sàkk mbooleem taxawaay yu am solo yi lépp a ngi dooree ci guddi gi nga xam ne ci la ñuy séentoo weeru koor gi bu ñu ko gisee ci la ñuy door naafile yi ñuy amal ci jumaa ji ànd ko ak sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Gédé jullit yu bëri di ko teewee ndax la lu am solo la ci koor wa wassayna linsaana biwaalidayhi xusna xamalathu ummuhu karhan wa wadaathu karhan wa xamluhu wa fisaaluhu talaatuuna shahran xattaa idaa balaga ashuddahu wa balaga arbaciina sana qaala rabbi awzicnii an ashkura nicmataka allatii ancamta calaya wa calaa waalidayya wa an acmala saalihan tardaahu وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الله أكبر الله أكبر liggéeykat bi farata yi mooy ab capitalam bénéfice am nag mooy naafile yi moo tax ni mu wattoo farata yi na góorgóorlu ci naafile yi ba kenn du ko ci man wax jooju ibnu ashir rahimahullah mi ngi ko jëlee ci waxi borom bi subhaanahu wa taala xadis qudsi boo xam ne mi ngi ci saxiixul buxaari di xadis bu wér yàlla azza wa jal di wax ne sama jaam bi du ma jaamoo lu ma gën a bëgg li farataal ci moom maay nekk déggam bi muy déggee nekk jisam bi muy gisee nekk loxoom bi muy jàppee bi muy ngëbee nekk tànkam yi muy doxe mu dolli ca ne bu boobaa saa bu ma jaam bi ñaanee ma may ko lu ma muslu ma musal ko ci gis nga wàccuwaay bu kawee ngi nii boo xam ne jullit bu ko bu fa yegg rek mën ngaa wax ne dëgg-dëgg diineem mat na waaye ñàkkatul dara ci àdduna dem ba yàlla nekk sa bët nekk sa nopp nekk sa loxo nekk sa tànk waaye dëxal la warlul la ne boo ko ñaanee mu may la boo ko musloo mu musal la te la ëpp solo loolu yëpp nag mooy yàlla bëgg na la loolu li koy may nit ki mooy naafila illa ma shaa allahu innahu ya'lamu al-jahra wa ma yaxfa wa nuyassiruka lil yusra naafila yi ñuy amal ci jumaay Tuubaa ju mag ji ci loxoy sëriñ Gédé Mbàkke lañu ko tegoon ndigal laa ngi bàyyeeko woon ci sëriñ Saalihu Mbàkke moom Xaadimu Rasuul tey jii ci loxo doomi sëriñ Gédé Mbàkke la nekk di sëriñ Fàllu Mbàkke liggéey ay saa boo demee ba yëg ne war nga am ku la ci aw yaay seet ku la ci doy rek nga jox ko mu aw la. am na bis ak suba teel ñu ànd ñëw ba ci sëriñ Saliou mu ne ko liñ ma waxoon ca naa seet ku ma doy ci liggéey bi mu ko mu di ko def day suñ fàllu mi mën na ko. mu ne ma ànd suñ ma ànd suñ mu jël loxoom teg ci sama bopp ñaanal ma daal ne baax na loolu moom ci jamono Serigne Saliou la woon kon. yàlla dogalee nag sëñ Saliou njëkk fii jóge ginnaaw bi bàyyi sëriñ Guèye jóge fi bi Cheikh Mouhamadul Amin ñëwee mu mel ne la sëriñ Saliou ne woon baax na loola rek la daal di. wa qaala alladina kafaru lan nu'mina bi hada alqurani wala billadi bayna yadayhi walaw tara idi zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarjiu ba'duhum alxuraanul karim gi ñuy naafila ci jumaay Tuubaa ji ñu koy jàng ci njàng mu cosaane moo xam ne foo ko déggee sa xel du dem fenn fudul ci dëkk bii di Tuubaa xam naa nag fu mu jógee man mi sax xawma ko man na mën naa ne daal yëg naa ne am na genn koor daal goo xam ne eh, naafile nañ ba ci biir naafile gi mu mel na ci la bi tàmbalee ñu li mel nag day dem di gën di soppi ko di gën di soppi ko ba agsi fi mu agsi waaye fenn fu mu naan dama ko dama ko royee ci diw wala mel noonu wala dañ koo waajal wala dañ koo kere déedéet moom daal dañuy taxaw di jàng rek ba mu mel ni daa jékki-jékki ñëw rek ñoom xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi 4h30 du matin moom moo jot maanaam ci fajar gi ñoo ngi waat fii ci jumaay Touba ji ñu war a door njàngum fajar mi ñu fi amal ci diiru weeru koor gi ci waxtu wii laa njàngum xasida gi ñuy amal ci jumaa ji ci Grayas ndigal la loo xam ni mi ngi bàyyeekoo ci sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru mu jox ko sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Ibrahima Gueye ñuy ay ayloo njàng mi génn ci penc mi doon feexlu téléphone bi sone muy euh, muy sëñ Jéeli Bas mun ma sëñ Muntaxa daf leen soxla yow ak sëñ Ibra Guèye ma ne ko kañ mun ma léegi ma ne ko fan mun ma kër sëñ Touba man ko sëñ Ibra da daa nekk Thiès mun ma saytu naa ko ba xam ne ma nga Thiès. waaw loolu de sëñ bi moo won woolu woon mag sëñ Abdoulaye Touré bisu koor gi bi ñu umee ci bis bu njëkk bi. biñ dogee la nañ koo wuyu si fii ci Touba sëñ Abdou Lahad nag moo njëkk a dem. man ko woon ndax sañ na maa ñëw man rek man ma mi ngi lay xaar nii de mi ngi mi ngi mi ngi ko sëñ Touba la xaar ma daal di bàyyi la ma lépp ñëw ma accès fekk ko ci néeg bi moom ak si Sylla ak sëñ Modou Rokhaya ñoom ñaa ñoo ñoo rek ma ko nuyoo mu ne ma njël gi daal laa bëgg ngeen jël ko. ويكفي جنابي شر ما هو واقع salaatan wa tasliman min allaahi abtaxi liman kaana bittaahaati abdan yusaariu muhammadin ilmunji dawaaman xadiimahu mahal aali wal asaabi niamal mutaawiu karimun bi arjo min allaahi ismatan وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة wa an yaqbala al amala wallahu raafihu ñu demee sëñ bi leeral ko ni ko dafa am liggéey bu may liggéeyalu ci jumaa ji te yaag Ibrahima Géele sama xel daj te yéen laa ko digal ngeen ma koy defal man ko ci waxtu woon man ma xam naa ay ñeenti waxtu ak yooyu rek muy diggante ñaari nodd yi ngeen di ko jàng xasida foofu أشهد لا إله إلا الله man ko Sëñ de jàng Cees man may jàng ko Sëñ Suwaybu man ma waaw waaye lii daal laa bëgg ngeen def def ko maanaam yeete bi daal ngeen bokk ci daal kii kii yeete daal fu mu tàmbalee ngeen ngeen fu mu yem ngeen tàmbale fa ba ba ba ñuy noodaat rek. ginnaaw ba euh, lañ ma woowaat ni ma sëriñ bi na yow it nga ñëw mu leeral la dëgg-dëgg mbir mi li ci sa bi may jógee Thiès ñëw it maa ngi ko fekk ci kërug daaru Minam gi xaw naa guddi lool waaye ni mu koy waxee si Abdou Lahad rek noonu la ma ko waxee. ni ma dafa am loo xam ne dafa bokk ci mbébétam bokk ci ay xemmem teefam muy ñuy yëkkati eh, diggante ñaari nodd yi ci jamono ji ci eh, biir jumaa ji ne nag eh, bi ma ko xalaatee yàgg si Abdou sëñ Abdou Lahad Touré yi ñaan la sama xel daj nee na ma daal sëñ Tuubaa ngeen koy defal mel ni coono yi ñu ci mën a dajit maanaam euh, sëriñ bi jar ko ëpp yëg bu wér wér lañ ci am ci ni saa yu ñuy jàng dañuy yëg ni noonu moom mi ngi nii noonu tam la yëgee ni ki ko doon wax mi ngi nii noonu la ñuy yëgee ko doon wax loo mi ngi nii saa yu nu tàmbalee loolu la ñuy yëg. bu nekkee ci biir jumaa ji ci biiru bàkkam mu bi dafa dafa dafa dafa dafa yëkkati aw bàkkamit euh, mooy lim tagg yonent bi ak julli ci moom ak ñaan ci suñu borom ak màggal ko. wax dëgg yàlla loolu moom ku ne day moom borom Tuubaa daal amul morom daal man daal loolu ci yëg fii ci résidence Xaadim Rasoul gi jàkkaarloog jumaay Tuubaa ju mag ji sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru di xalif général des mourides fi lay dundalee koor gi bu benn waxtu ci bëccëg di jot maanaam 13h ci la fii sëriñ bi di ñëw ginnaaw bi ñu jullee tisbaar ba noppi ci lay tàmbalee dalal mbooleem délégation yi nga xam ni ay daayira la ay kilifa ak gan yoo xam ne dañuy bàyyeekoo ca bitim réew ñëpp ñëw di ko ziyaara loole àgg na ba ci ganinaar yi nga xam ni at mu jot dañ fiy ñëw ñoom it di feddaliwaat seen kóllëre diggante seeni maam yi ak Cheikhul Khadim 15 heures jot ci daaray kaamil nekkee ci penk jumaa ji fii ñu fi amal ay jotaay waxtaan yu am solo ci ay thèmes yu wuute diiru weeru koor gi. waaw programme bi moom yàgg nañ ko amal ci depuis 2004 ba léegi ci ndigal lu Seex Saaliwu Mbàkke ci li ko sëñ ab sëñ sëñ Moustapha jëlee woon ndigal loolu nag ba léegi ñu ngi koy woyal waaye nag euh, année yi nag jàll année yi nag yi ci yu bees yi dañ koo gën a yeesalaat ndax année yële daa nekk ay durus ay jàngale sëñ Moustapha daan jël téere daan ko jàngale. waaye nag ci ñeenti at yi jàll moom ak at at bi at bi dañ ko def nag changé gën koo yaatal di ay borom yi xam-xam yu mag a mag ci dëkk bi ak bi ci nekk ci réew mi ak ñu nekk ci biir réew mi di leen ci jox ay thèmes yu wuute thèmes yoo xamante ni nag thèmes yu am solo ci doomu aadama ci dunduñu doomu aadama thème loo lépp loo xalaat ci dunduñu doomu aadama ak melokaan doomu aadama rek thèmes yooyu dañ koy dañ ko fiy def. ginnaaw bu ñu jullee tàkkusaan ñu dellusiwaat fii ci résidence Xaadimu Rasuul ci njàngum xasida mi nga xam ne waa daara Hizbut Tarqiyyah dañ ko fi amal ginnaaw tàkkusaan gu ne ci teewaayu xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru sëriñ bi di fi dundal weeru koor gi ànd kook kilifa yi ak taalibe yi jotaayub dundal koor gi fii ci résidence Xaadimu Rasuul sëriñ bi mu ko dooroon ci atum 2018 di jotaay yu am solo yu làmboo ak i ngëneel yu bëri. sahrul xayri wal baraka di weeru ko dundal ci biir kër Cheikhul Xadim te Cheikh Mouhamadou Moustapha waxoon na suñu Buxaari ne ko sa baay de nee na ma jaamu yàlla baax na fu ne waaye sakk ne na Tuubaa kon lii Cheikh Mouhamadou Mountakha def ngir dundal la nga xam ne kilifaam yu tedd ya ak waajuram yu tedd ya doon nañ ko def mooy lii mu defee ndax Serigne Touba fu mu mos a nekk fu ne bu yor koor accès lu def da ko yokk ba ñëpp ko bu dee ak ku ne xam ne tabuk tabuk tabuk bi waaye yor accès koor mosaan accès dégg naa loo ko laaj mu jox la ko ne xanaa gan sama weeru tedd bi nga koy waajale kon nag njabootu Serigne Touba gépp te njabootu Serigne Touba bi ñu ko waxee ñëpp ci leen tàbbi. liggéey la bu sëriñ Touba nangu liggéey la boo xam ni eh, kilifaam yi ko jiitu ku ci nekk daa nga ci liggéey ci xaside yi liggéey bu bu yéeme waaye nag moom daf ci am jagle boppam waxoon naa ni eh, Cheikh Abdoul Ahad mu fi nekk ci ay jamonoom eh, daana ko teg ci biir këram ba ci jumaay Touba ci sax xaside yi defoon ay rajo ci kër gi yenn yi mu def ko teg ko alaaji moo doo amoon di ko saytu guddi gune ci surtout weeru koor nii ko mu Mountakha di dundalee la ko daan defalee ba bët set waaye nag jagleeg Cheikh Mouhamadou Mountakha nag mooy bi mu agsee ci weeru koor yu mu sos fi lii. Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ci Serigne Touba suñu borom dëgëral ko kattanal ko ba nga xamee ne rod na ci xelam rek te muy loo xam ne ci Serigne bi la bàyyi ko man la ci jëkk waxal booba moo fi nekk mu yónni ci moom ko xalaat ni mu ko bëgg a ak fi mu ko bëgg a muy barab bi. mu ne ma sañoon itam weer yëpp ñu di ko ànd ngay ne sama wet ak njabootu Sëñ Tuubaa yëpp di ko dundal. moo tax njabootu Sëñ Tuubaa yëpp ñëw fi ànd koog moom di ko bége te xam ne xaasi boppam lañu ko Sëñ Tuubaa xaasal ñu yéene ko ko te di ko ñaanal yàlla mu gën cee dolli am ndam. waxuma la sax xasida yi ñuy dundal ak diggante bi ñuy def fii nga xam ni lépp suñu borom lañ koy jox ak Sëñ Tuubaa waaye beneen mbir da cee am mooy nun sëtti Sëñ Tuubaa yi fi tase. am na ci ñoo xam ne bañ dajee gisante waxtu bi daaw la woon ndax xatuk jamono ak teraangay siñ Tuubaa ji nga xam ni kenn ku ne barab ba nga nekk fekk na la fa ak xatuk jamono ji moo waral loolu waaye loolu lépp sëñ bi dindi na ko ndax noo ngi gisante di saafonte di seq lépp mboolem taalibe yi teewee ni ñu dundalee weeru koor gi fii ci résidence Xaadimu Rasuul ak kilifa yi am nañ ci mbégte gu kawe lool ci ni ñu koy amalee di ko sëriñ bi santaane. boo amee ndigal lu toll nii dundal sëru Ramadan te xam nañ ne sëñ Tuubaa fonk gi mu ko fonk bu ma fàttalee rek kàddu yi ñu si Abdoul Ahad Mbacké yàlla ñu ko yàlla fayal la mu waxoon nee na weer wi nga xam ne mooy weeru koor bi mujj defee fii Touba.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 murum koor sax amul ku mu ko jox bu geesoo it gisul kenn ci ginnaawam koo koy xaadimul Moustapha liggéeyam boobu nu liggéey nag digganteem ak boromam ba suñu borom fay ko li mu ko fay ba tey jii ñëpp jublu ko ku bëgg lu baax it war a jëriñu ci suñu borom ñëw ci sëñ Tuubaa kon nun su fekkente ne weeru koor dikkati na Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko dundalee nii di fàttali njaaram yu jëkk ji suñu amee tawféex yi ànd koog moom sant rek. tawféex la jëmmi jotaay bi man ni ma ko gisee. mooy sëriñ bi dafa am lu mu waxoon bind ko yi teg ci dane kulliyati mujisatun taaxarat wa xayra xayraatin la day kaddu xirat sama lépp ay mujisa la ci yonente bi sallallahu alayhi wa waaye dafa bokk ci yeex a ñëw ba ñu bàyyil ko ko fi ba mu ñëw feeñalal ko ko daana ci misaal yenn nee na dafa wax yonente bi ne ko gis naa ci téere bi muy alxuraan ay mbir yoo xam ne ñàkkoo ko waaye danga koo jëfandikoo wut ngir ay sabab ma bëgg nga rafaatale ma ko mu ne ko ban ak ban mu ne ko bu njëkk mooy gis naa suñu borom ne la wala taxuttuhu bi yaminik idan lartaabal mubtilun binduloo wuñ ko ndax ak dagg aw lay comme yéeféere dañ doon dañ ko doon tuumaal ne alxuraan xalaati boppam la su fekkoon muy ab bindkat di ab jàngkat kon loolu dana mën a am fu sukkandiku waaye gannaaw loolu yëpp amut lañuy wax kon tegawul fenn moo tax mu ne ko idan lartaabal muttiloon mu ne ko gis naa it ci téere bi suñu borom ne la wa ma alam naahu siara way la woon ko ndax lan bu doon way du xam ko muy way moo gën ñëpp moo tax mu ne wa maa yan ba daa yëllut ci moom sëñ bi nag ne ko ñaar yooyu laa bëgg nga rafaatale ma ko mu ne ko jëlal mu ne ko defal ma ci lépp loo xam ne soo ko doon def yow am ko ci mu ne ko defal naa la ko moo tax sëñ bi teg ca ne moo tax ma am ci bind ak way xam ne màggatum lawbe mu yorul lu dul menn mbaam maanaam li ko ci defal ku ko defaloon màggatum lawbe mu yorul lu menn mbaam ko def toog di mu bi àndal ba di علمت يقينا نزل أمس قادر على كل شيء ولدان منصور عليه بكريم الذي زاد وسلم عليه صلاة الله العالمين بكونك خلقا جملة الغر يبلغ أريد سفيها ملقيا زائقة بك الله لي قاد الذي لا يدفع علومي وإرفاني بك الله قاد إلي فأنت المنتقى وسميزا njàngum xasida gi diiru waxtu lay doon fu 18h30 jotee dañuy ñaan ci waxtu yi ñu amal njàng mi ginnaaw tàkkusaan gi ci jumaay Tuubaa ju mag ji waa daayira mu xaddamatul xidma ñoom it di fi amal jotaayu waxtaan yu am solo yu yaatu yoo xam ni di ci ànd ak boroomi xam-xam yu kawe. la bu rëy boo xamante ni mbooloo moom takkoo takkoo takku moom lañ fi dalal muy ci waxtaan yi ak ci ndogo yi loolu nag xam nañ ne dafa laaj organisation. dafa laaj itam ab taxawaay bu am solo dafa laaj itam équipe bu mag boo xamante ni moo koy mën a taxaw waaye yàlla dogal na daayira Muxaddamatul Xidma comme jamono ju nekk saa su nekk day liggéey ci jumaa ji te jumaa ji du tàqalikook mbooloo moo xam ajjuma yi la moo xam événement yi la muy màggal yi wala gàmmu yi tax na mu amoon ay commission yoo xam ne dafa saxoon ci biir daayira bi amoon na commission culturelle boo xam ne moo yoroon lépp lu aju ci wàllu xam-xam commission boobu ñëwee ab liggéeyam ci koor gi daf koy gën a renforcer rek mais déjà amoon na ba noppi moo ñoom ñoo yor waxtaan yi xam nga fanweeri jataay lay doon yi ay fatawa yi di ay mawduwaat yoo xam ne thème yuñ tànn la nii yenn yi di ay durus di ay bind. moom dana wax ne man dama kuy boole yàlla ak dara farraxani kawnul ilaahi alwaxida wala uhibbu mushrikan aw jaaxida moo tax dafa dañtal woon ci lépp loo xam ni mooy boole suñu borom ak dara te suñu borom sax moo ko ci setal moom barraani alxaqu min al ishraak moom dafa selaloon suñu borom dababtu li gayrillaahi maa lam yaliq bihi lépp loo xam ne yëlul ci suñu borom daal dàqal naa ko ko ba du ko jege kenn mënul tudd weeru koor ci yoonu murit rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba te sa xel du dem ci ndoguy Baye Fall yi nga xam ni moom la waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall di togg di ko indil waa kër Serigne Touba yi.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 borom Touba moo ko sant maam si Ibrahima Fall Babu Mouridina mbo njabootu si yële Fall gépp di ko def fii ne kër si yële Fall goo dem lii si ëmb xëy di fii ñu def foofee ci ndigalul borom Touba. 19 h jot waxtu ndogu jege si. ñu dellusiwaat fii ci jumaay Tuubaa ju mag ji ñu fiy waajal ndog yu am solo yoo xam ni at mu jot waa daayira Muxaddamatul Xidma daañu ko waajal bu baax a baax di ay ndog yoo xam ne bis bu yàlla sàkk ci biir weeru koor gi dañu koy jox mbooleem taalibe yi lalal leen ci yokkoy jumaa ji di ndog yu mucc ayib yoo xam ni ci atum 2020 bi ñu génn jotoon nañ cee dépensé 59 millions de francs CFA ci biir weeru koor gi yépp budget boobu nag at mu jot day gën a yokk ndog dañuy wax euh, mbirum Serigne Touba rek day am tànki kanam mais doo am tànki ginnaaw biñ koy tàmbali année bi ñu ko njëkk a def 2005 boobu budget weer wi yëpp matul woon sax 1 million 900 quelque mille la woon waaye daaw daaw ñi ngi ci 59 millions et quelque 59 millions juróom juróom fukki million yu tegal juróom-ñeent daaw ñi ngi ci woon. xam nañ ne kon ren danañ jéggi foofu ndax fii may waxee yow rek bis bu set 1 million 275 mille danañ ko financé ci jour bi ndax bu ma la waxee ne danañ jënd. junniy mbuuru ak juróomi téeméer 1500 pain danañ ko jënd bokkul ak mburu yi nga xam ne dañ fi ñëw ci addiya de ñu ko fi joxe bokkul ñëw jëfandikoo ñeenti saakoy sukkar danañ segg fukki kiloy café ak juróom danañ jël fukki kiloy jinjeer danañ jël euh, ñaar fukki kiloy bisaab loolu ci xayma su ma la ko waxee rek war ngaa xam ne kon quantité bu mag la war a àndal ci yeneen yi muy àndal ci ay meew ci ay euh, boisson yi ñu jëfandikoo ci ay saucisson ci ay lépp loo xam ne dafa aju ci ndox nga xam ne daal budget bi un million cent soixante mille par jour mooy li nga xamante ni moom la ñuy dépassé. Sëriñ bi weeru koor di weeru Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul fonkoon daan ko dundal bu baax a baax dundal googu ñu ngi koy wéyal bu baax fii ci dëkk bu sell bi di Touba. lépp di tàbbi ci ak jaamu yàlla gi taxoon Cheikhul Xadim sañ ci dëkk bu sell bi di Touba.